jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci Parcelles Assainies ba tey ñu seet si xale boo xamante ni macha allah Atou Junior école de lutte Bada Dione la nekk mais xale la boo xamante ni daaw ci saison bi bëri na ci benn combat boo xamante ni euh, yàlla dafa dogal mu ñàkk looloo waral tey wasaare làmb ñëw seet si ko ñu waxtaan ak moom fan la toll ci làmb. fu mu nekk ak nan lay waajee ba xam promoteurs yi ñu ngi koy woo waa wala déet loolu yëpp na wolof daf ne tungu ne du teew ñuy natt ci ëkk dañ ngay waxtaan ak moom rek bàyyi ko mu nuyoo aatu maa lay nuyu. jili maa lay nuyu maa ngi lay jaaree ginnaaw ma nuyoo ñëpp julli jën bi sant sama ñaari waajur damay sant ñëpp di sant waa parcelle di sant waa bawol gi nga xam ne fa laa dëkk sama dëkk nderep euh, waa Réfane sama waa écrit école de lutte Badajon sama mag Moussa Dioum waa parcelle gi yëpp di leen sant di leen gërëm di sant ñëpp di sant waa wasaare lamb ku ci mel ni yow ngay sama nit di sama xarit. <laughs> Atou lan moo la dugal ci làmb. waaw làmb dama juru fekk samay mag nekk si ku ci mel ni ñoom Moussa Dioum ñoom Ndoof ñoom Lat nga xam na ñoo bokk benn dëkk ñu nekk si làmb ma gis ñu yëngu si làmb am ci réussite moo tax ma ñeme see dugg bëgg mel ni ñoom. nga dugg ci làmb ban année dugg ci làmb. waaw année bi ma yëg ne dugg naa si làmb dëgg-dëgg mooy 2010 2011 parce que instant yooyu maa ngi dugg si làmb di commencé mbapat mais bëriwuma ren may maa ngi topp si mbapat yi di mbapatantoo. 2010 2011 nga commencé dugg ci mbapat yi di bëre. waaw ci laa commencé dugg si mbapat yi di bëre ay am ay combat yoo xam ne combat mbapat la ñuy nommé ak ay dem di bëre ji ay mbapat nii ay tournois waaw. nga dugg si ci arène kañ. 2014 ci diggante combat Wuli 2 ak Ndiaye Malick laa njëkk a bëree. Dakar si ko combat fële Assane Ndiaye Ngor bi maag jukat bu Songane Gueye yàlla mayaan ma ci ndam 2014. kon sa première sortie combat arène da nga cee am ndam. waa dama see am ndam waaw ci maag jukat bu Songane Gueye ci combat wuli de ak Ndiaye Malick. ñaata combat nga bëri arène. bëri naa neuf am ñaata victoire. am cinq victoire quatre défaites. la daan ci quatre défaites Boy dakaar moo ma daan. Boy Dakar bu Géejawaay ak euh, benn benn booy sax fàtte naa ko ak ki ma mujj daan daaw nii. muy Vito muy Vito waaw. noonu la fa demee waaw. Vito nga mujjee bëreel mu daan. Vito laa mujjee bëreel daaw ci saison bii passé le 21 avril mu daan ma. nga daan kan ma ma daan euh, jukat bu Songane Gueye daan euh, Baye daan Cabion daan Rëm daan bébé. mbës. nga daan ñooñu ñëpp ci làmb làmb simple yi yaa ngi ciy yëngu man aatu du ma la gis ci làmb simple yi de. làmb simple bi moom gëjoon naa ci yëngu mais ren renouvelé naa sama licence génn naa benn yoon mais Kaolack laa génn waaw benn yoon laa génn Kaolack laa demoon après ma dem deuxième tour ma ñàkk après foofu bëriwaatu ma ba léegi ni génnaguma mais maa ngi préparé maa ngi waaj maa ngi si li war daal. yaa ngi waajal. maa ngi waajal bu baax a baax a baax parce que dama liñ naan gaynde mer euh, mer la fanaanoo dafa am lu ma yoral samay supporters am loo xam ne dama ko yoral samay xarit am loo xam ne dama ko yoral samay dëkkandoo muy bor boo xam ne dama leen ko war a fay ci loolu laa nekk nii moo waral daaw ba ren ba ma ba ma amee defet ba léegi kenn gisatuma parce que dama nekk di liggéey maa ngi ci liggéey boo xamante ne nii maa ngi ciy sant yàlla parce que 6 heures et demi laa yeew di ñëw fii ni musculation ci salle bi maa ngi ñoom ak Papa Sow ak ñoom Gora Sow ak ñoom chaque jour ñooy bokk séance d'entraînement chaque jour maa ngi kon maa ngi sant yàlla bu baax kon li ma war a nekk nga nekk ci loolu sa combat bi mujj yow ak Vito dañoo gisoon ni aatu bi nga ñëwee ci làmb ja keroog macha allah ni nga forme waaye combat bi ni nga bëree ba ñàkk combat bi mun nga ma ko expliquer ndax li ñu gis ci combat mooy aatu dafa jël coup kaawoo mun nga ñu expliquer carrément combat bi nu mu demee. waa ji li boobu ñàkk naa ko mais pour man kawoo ma quoi. léegi nga jugee ci combat boobu yaa ngi Vito promoteur yi bi saison bi ubbee ba léegi ñu ngi lay contacter. waa loolu moom dëgg la ba démb rek promoteur woo na mais date bi ma wax moo ma arrangé wul parce que ñun suñu jàng yi le 3 avril la le 3 avril la te moom le 4 avril la bëgg mënu ma ne ko mënu ma bëre le 3. Ah, kañ ko bëgg. le 4 avril la ko bëgg ma ne ko man mënu ma bëre le 4 avril parce que sama booy dëkk bi yëpp mafia bi dañuy dem jàng ya kon mënu ma am xew foofu ba noppi di wëlbatiku waat di jëlaat combat fii kenn du ma topp parce que bëgg naa su may génnaat ma def mobilisation bu garaaw loolu moo tax ma ne ko mënu ma bëri jour boobu mais am na yeneen promoteurs yu may contacter mais amaguñu accord. parce que mbër yi léegi moom dañoo doy waar ku fi jël sa avance mën na dem ba si biir mu delloowaat ko kon léegi ñun dañuy def nekk si li ñu war a nekk rek promoteurs yi ñu ngi ñuy woo mais dañuy góorgóorlu nekk si li ñu war a nekk voilà. fan yii maa ngi doon dégg ñu may annoncé benn komba Atou Junior ne ma combat bi taxaw na ñu dem ab diir combat bi taxawul lan la combat bi taxawoon na wala taxawul. waa sama combat taxawoon na maag Baama Ndiaye. Baama Ndiaye ban. Baama Ndiaye bu Géejawaay Baama Ndiaye numéro 2. sama combat taxawoon ak moom euh, promoteur bi woo ma sama manager moo ma njëkk a woo Sourou Fall ne ma combat bi yàqu na ma ne ko lu ko yàq mu ne ma assise manager moo ko yàq ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko as warul yàq loolu mu ne ma moo ko yàq ma ne ko as bu ko yàqee bu subaa naa ko woo téléphone ma woo ko téléphone laaj ko mu ne moom booy bi xaw ma lii ay affaire yooyu noonu mais manager yi li ma lay xamal mooy dañoo war di bàyyi di yàq ay komba parce que ñun ay ndaw lañu dañoo toll si liggéey fii kenn du fi daan nit ba rey ko fii kenn bu fi doole kenn. ku préparé da ngay ànd ak say nga ñëw préparé kon Baye Ma Ndiaye du ko daan ba rey ko moom dul ma daan ba ma moom lim si am moom lay am Baye Ma Ndiaye lim si am ma ko man li ma si am ma am ko kon nañu yemale mbër yëpp même nit ki boo ko yorul un bon mën na ñëw nga yor ko kon nañu xam ne liggéey la rek ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay te ñoom ñooy am ne bu ko doxalee rek am dina ñaaw loolu rek laa am lu may wax ci. promoteur bi li waral mu yàq combat bi mooy dafa jàpp ne yaa ëpp doole ma Mandiaye wala lan la lu tax mu yàq. manager bi ah manager bi day ay waxam la rek moom daal li mu wax mook mbërëm moom la concerné ba yàq combat bi mais ala kulli haal tey tey bu avance bi ñëwoon ma lekk ko. mais Atou ku bëre neuf komba am ci nombre de victoires yi nga am am ci nombre de défaites yi macha allah palmarès bu baax la te et bëri nga ak ñoo xamante ne say moroom lañ sa naataangoo ci làmb ñan la boo ma ko doon ciblé. instant yi nii bu avance su Bulldozer ñëwoon dama koy lekk. Bulldozer men mi daan euh, kii numéro 2 brise de mer numéro 2. déggoo ma la wax guy rëy na guy na mais matul kër yi man ci keppaaru Moussa Dioum laa juddoo ci keppaaru musa Dioum laa yaroo moo ma jàngal bëre moo ma jàngal xeex. lu ma mën si làmb moo ma ko jàngal barke alxuraanu karim yemuñu ma fii si bëre. mais moom teggi ko Bulldozer moom dafa diis. yàlla xam na ne yemuñu ma fii ci bëre boo yëmbal bu ñëwee ñu bëre. boo yëmbal men. boo yëmbal benn bëre xeer ngor ma 2. dañ koo daan bu ñëwee ñu bëre. moo daanoon keroog de waaye recours bee. dañ ko daan. barke bi. dañ ko nuñ ko daanee xaw ma de mais en tout cas la recours bi génn na moom daan nañ ko. ci recours nga basé wu wala nga seetaan lamb ji. man seetaan naa lamb ji premier site bi dañ koo dafa dañ koo daan. nu mu def expliqué ma nu mu def boo yëmbal ba ñàkk combat bi. boo yëmbal lu mu def ba ñàkk combat bi ah xeeru ngor dañoo bëri xeeru ngor daan ko dañoo bëri xeeru ngor daan ko arbitre bi xam nga arbitre élémètre du terrain lu mu wax loolu mooy am jour boobu après ñu waat mu daan waaj yi waaj yi def recours ñu jox ko victoire en tout cas daal li ma lay wax lu bëri ak lu bëriwul boo yëmbal si ñëwee ñu bëre Baye Ma Ndiaye numéro 2 moom bu ñëwee ñu bëre Siteu bu Saloum bu ñëwee ñu bëre. waaw waaw ñëw fekk la salle de musculation yow nga toog entraîné sa yaram ñëw nga xam ne yaa ngi ci état nga toog laaj ku neex mu ñëw. jiili ngay laaj ñoo xam ni bu ñu leen tëjoon ci digg géew doo wax lu nga leen yabee. jiili ku ku ku la yab ku ne dafa miin sa xuloo ñooñu noonu boo leen boo ma tëjoon ak ñoom si néeg. barke alxuraan karim nga xam ne duñ sa du ma seen morom làmb nag dafa tërëri nit mën na nekk di tërëri di dem di tërëri di dem mais bés dina ñëw ñu xam ne ndaanaan yi dëgg ñu ngi si biir làmb ji man dañu maa jàngal bëre ba noppi ma tarbi woo làmb man làmb duma ma si wori parce que léegi bu ma si yàggul léegi ma yàgg si te ci keppaaru Moussa Dioum laa jàngi bëre kon am dara jaaxaluma ma si làmb. li ma jaaxal ci keppaaru Moussa Dioum nga jàngee bëre. Moussa Dioum yor écurie boo xamante ni moom moo fay leader bi muy parcelle mbooloo nga nekkoo ci parcel mbooloo ci Moussa Dioum nga nekk ci écurie Bada Dione lu la jëlee foofu ak lan lan moo tax nga dem écurie Bada Dione te parcelle gën laa jege. écurie Bada Dione ak écurie parcelle mbooloo yëpp benn la man parcelle mbooloo laa après à fin ci laa demee écurie Bada Dione Bada mooy mag mussa Dioum kon bu Bada Dione écurie ubbee écurie ak parcelle mbooloo amul différence man waa parcelle yàggul ba mu bëreeg ñoom du ma si bëreeg kenn. du ma bëreeg benn mbëru parcelle man damaa bokk si parcelle ba noppi wëlbatu ko bokkaat si Bawol kon damaa bokk si ñaari gox man parcelle mbooloo tey su ma jógee fii su ma neexee damay dem contact yi. lan moo la fa jëlee. non dara jëlee wu ma faak amul lenn lu ma fa jëlee loo xam ne daf maa naqari mais nag nit ki mën nga su la neexee nga dëkk fii tey ba mu neex la nga dem seeti foo dëkk parce que kenn ku si nekk yaa xam fi nga ni nga boo tëddee ni ngay fanaanoo voilà loolu la. nan nga gisee làmb fi mu toll nii grand contre petit bi ñuy wax ci làmb Tapha nga xam ni macha allah yéen bawol bawol yëpp moo nekk seen mbër yéen ñëpp koo ci koo ci wax mu ne la damaa bëgg a mel ni Tapha Tine fan la jëm ci carrière am keroog Reug Reug mu ngi koy dëkk stade Diom Iba Mar Diop combat boobu jaadu na. combat Tapha Tine ak Reug Reug loolu xel muy xelaat sax waru koy wax Reug Reug moo am na droit dëkk Tapha mais promoteur amul xel xelam ak xalaatam xanaa ñemewu la woo Tapha naa ko yàgg Reug Reug Reug nag rajo télé fu ne mu ngi fay toog di wax mais moom dafa war a bëri ak ay moromam Bërëndoo da bëgg a wax bëriwul ak morom. bëri naa ki moromam mais dafa des. ñi ñi muy laaj ñooñ dañoo rampe si làmb ñooñ ba làmb di metti la ñuy rampe ba léegi nii mais Reug Reug li ñooñu rampe rampe wu ko. Tapha li ma koy wax bari na bariwul mooy mu am fulla ak fayda si boppam ba xam ne du moromam du nawleem bu mu toog ci télé wala rajo mu ko sax mu koy motlee waxtaan bu ko defee day ñàkkal boppam fayda mel ni da moroomam te du moromam loolu rek la am lu ma koy wax. dafa mel ni bawol bawol yëpp koo ci wax ndeysaan ñu ne rëg-rëg ak tafaatin du combat tafaatin bu mu ko tontu bu keroog mer na ci bi mu ñëwee ci euh, cinq millions yi association des promoteurs tëggoon ba mer ndax rëg-rëg di wàcc na dëkk ko mu mer waaye làmb ak loolu ñoo ànd tafaatin léegi bu dul rëg-rëg kan nga koy jox. gis nga li jour boobu ngay wax noonu ci bésu promoteur yi du bésu dëkkante bés boobu Matar Ba lañ tudde woon drapeau bi ñun ñu ñëw war a sargal Matar Ba parce que li mu defal làmb ba muy nekk ministère li am si làmb mosul am ci làmb mbër yi ñëw moom dafa ànd ak Eumeu Sène bàkku fecc nit ñëpp kontaan kon bu Tapha Tine ñëwee dafa war a ànd ak moom bàkkum fecc nga xam ne beneen bés dina ñëw mu mu dëkk ko feneen mais jour boobu du jour dëkkante loolu rek la. dëkk dafa am moment boo war a dëkkee mbër ak moment boo ko warul dëkkee am foo koy dëkkee ak foo ko dul loolu dafa am. kër jili ku fa ñëw di dëkk mbër da ngaa yàq sa dëkk rek waaye jili du la tëggal làmb. loolu laa lay wax parce que léegi fu ñu fu neex waaye dëkk mbër bu la neexee sax groupe groupe làmb yi léegi nga nekk si dëkk mbër te yàggul ba ngeen bëree mais léegi groupe lamb yi ak dox daje yi tax na léegi lu neex waay wax lu neex waay def mais loolu taxawalul lamb lii taxawal lamb léegi dafa am secret ci biir voilà. man daal aatu dog maa jaaxal fi mu toll nii li ngay dégager ak li ngay wax dafa mel ni am na loo ŋànk te fii jàpp goo ko du dagg. mooy li ma ŋànk moom fi mu toll nii mooy ma am komba loolu laa ŋànk li nekk si man laa bëgg a génne depuis ma jógee ci sama combat ba léegi maa ngi liggéey. te ñi nekk ci salle xam nañu sama waa écrit xam nañu man maa ngi liggéey bu baax a baax a baax combat rek laay xaar. ñaataat nga am. man euh, est-ce que instant yii war naa am 30 ans voilà. Euh, comme ni ma waxoon laay waxaa rek damay sant ku ci mel ni sama papa di sant sama yaay di di leen sant di leen gërëmaat di sant sama mag maam Thierno di sant sama mbajan Adama Diak di sant sama yaay Ramali ak waa këram yëpp njabootam bi maa leen di sant di leen gërëm sama papa Jibril Diène. sama papa Kaaw Sow ak njabootam yëpp ku ci mel ñoom Fatima ñoom Kaaw ñoom ñëpp maa ngi leen di sant ñoom maam Salif di sant Racine Koli maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ak imam maa ngi leen di sant bu baax Sidi Sarr maa ngi koy sant bu baax ñooñ samay nit lañu nee nañu ma am combat la ñu xaar sama mbajan Adama Diak day son ci man lu ma bëgg daf ma koy defal sama yaay Ramali moom damay tàmbali sant rek mais uma fu ma yem si moom ak ñoom Tande Niang ñoom na koy Guèye ñoom inte set bi yëpp ci mel ni euh, ta ta Fataan ñooñu ñëpp dama leen di sant Ayda Ndiaye inte set bi yëpp sama turandoo Issa Ndour maa koy sant di gërëm di sant njabootam yëpp ñoom ta euh, Rama comme ni ma ko waxee woon yëpp di ñu santaat ñoo ñëpp di leen gërëm Banel Touré. maa ngi leen di sant di leen gërëm Siga Faye njabootam Moussa Dioum ay magam ay rakam damay sant ñëpp di sant waa saal bi di sant ñi may àndal di ñaanal Franc ndam di ñaanal Papa Sow ndam di ñaanal sama waa écrit école leen Badajon euh, village Elimane Sarr Badajon Cheikh Diouf dama leen di sant di leen gërëm di ñaanal mbay guy gi ndam yàlla na ko yàlla may ndam ak képp loo yàlla na ko yàlla may ndam suturaal ko ci barki Seydina Mohamed dañ koy ñaanal rek kooku duñ ko ñaax dañ koy ñaanal di ñaanal waa écurie bi yëpp ren yàlla nañu jël pee ci barki Seydina Mohamed. jërëjëf Atou Junior mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la wax émission bi nag dama koy may sama jabar jooju nga xam ne mooy madam Kébé joor Fall ma koy siyaar bu baax a baax a baax. bàyyi Serigne Fallou kebe ak Sidi Barxam Kébé ma koy jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk yi takk ma dara ay da di dem jaajëf Atou Junior jaajëf euh, bas foto ko